voilà jërë ngeen jëf yéen ñi nga xamante ni yéen ñuy euh, suivre euh, saa su nekk euh, tey nag ñu ngi fi nga xamante ni moom mooy ci arrivé wu Lions yi ginnaaw ba ñu defee sacre bi mooy jël seen première coupe coupe d'Afrique bi nga xamante ni daanaka Sénégal yu bëri génn nañ tey ngi daa leen di teeru jamono ji nag fi mu nekk nii mbooloo mi génn gis ngeen c'est extraordinaire ñëw ngir fekkee li nga xamante ne moom mooy ñëw gaynde yi bu ñu kiiwle dañu dem fekk ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñëw ci biir teeru laaj leen naka la ñuy dundee li nga xamante ni moom mooy ambiance bi ak xamante ne Sénégal jël na ko donte at yu bëri euh, ñi koy xaar donc ngeen topp ñu rek dañ leen euh, wan euh, ak li ne mooy route de l'aéroport waaye tamit intervention yi ne sénégalais am nañ ko ci li nga ne mooy coupe bi nga ne ñu ne pour fois fii Sénégal te gaynde war a fi nga ne mooy aéroport Léopold Sédar Senghor top donc ñu nekk ak benn sénégalais moom aussi dañ koy laaj. naka la dundee li nga xamante ne mooy ambiance suñ bi tur la. tur bi Abdou la. Abdou Aziz fan nga jógee ba ñëw fii. jógee Kaolack Kaolack laa jógee ñëw fii équipe rek moom ma ko jaral nag. ban heure nga fi yegg si. maa ngi fi yegg si 7 heures du matin laa fi yegg si. booba léegi yéen a ngi fi booba léegi ñoo ngi fii di xaar gars yi nañ yegg si ngir yàlla dimbale ñu. dañoo namoon coupe dañu namoon coupe. étoile Sénégal kañ la démb loo yëg dama xam dama ko dëgg rek xam. kii sama gànnaar moom a xëppoon ndox. wallaay ñoo bokk nañ Ndiayeen wóor na yàlla. ñoo bokk gaale wallaay xoolal instant yi waxatuñ coupe ñu soxla a tuddee sëñ bi tur bi naka la. en fait euh, je me de Guirey c'est région de Matam pour accueillir les lions on est tellement très fiers de, des lions vraiment euh, pour moi le seul qu'on doit remercier c'est Dieu à un moment donné on a senti qu'on a perdu mais la justice divine était de notre côté vous voyez c'est un grand joie on est là aujourd'hui pour accueillir les lions mais est-ce que vous étiez convaincu que coupe à un moment donné nous avons tous désespéré c'est pour ça que La justice divine a tracé à notre faveur. Donc reconnaissons cela. Ne soyons pas ingrats. Remercions Dieu. Le message, euh, l'autre message que j'aimerais lancer, je pense que cette fierté nationale, on doit la décentraliser. Moi, cette joie que je suis en de vivre, je veux que mes frères qui sont à Matam mes frères, qui sont à Matam, à Pourquoi pas accueillir les, lions de la Teranga, à Lucissé et ses hommes, Matam ok voilà donc euh, dégg ngeen li nga xamante ni yenn sénégalais yi ñu jotagum wax wax nañ ko cest a dire euh, ñu jël par région de Dakar région de Thiès Diourbel ak fu bëree bëri fu ci nekk ñu dem fa wàcc fa Lions yi Lions yi euh, andi fa coupe bi je pense aussi idée pour ñu ñëpp mën a euh, dund li nga xamante ni moom mooy coupe bi d'Afrique bi nga xamante jël nañ ko parce que Sénégal moo ne première fois mu jël ko donc dañuy wóyale rek ambiance bi ak tamit jël ñeneen ñoo xamante ni bëgg nañoo wax seen njaay mi nu mu demee jamono ji ak sant yàlla julli ci yonent bi doon yàlla dogal xale yi sunu borom lafal leen cet ba nu àndil nu coupe bi réew mi yëpp gis nañ ci seen bopp laaw la cet macha allah. yéen a gis seen bopp njaay mi. ndab li njaay mi laaw la cet. dañuy jaay ba laaw la cet daanaka gis nga yoratuma drapeau Sénégal dañu jaay drapo Sénégal ba amuñu ko final drapo Mali moom la dagg di ko jaay te Mali mooy Sénégal senegal mooy Mali xale yi di koy jël ci ñun nga xam ne li am senegal amul fen ni ñu bëggantee ak ni ñu fonkantee ak ni ñu soppantee googu. moo waral sunu borom yërëm ñu ren ba baaxee ñu coupe bi nit ñi ni ñu génn masul am ba may xale ba léegi bii mobilisation non non non bii moo raw 2002 lii masul am wallaay la deuxième de kii 2002 ñoom El Hadj Diouf ñoom Fadiga def nañ fi lu ne mais seen rakk yi ñoo confirmé ñoom ñoo tracé yoon bi te nag comme état la rek continuité la ñoom ñoo tracé ñoom El Hadj Diouf def fi lu ne. sagal nu façon sagal bu ne seen rakk yi ñëw na gën a neexal sunu xol ñu ngi di ñaanal ci kàttanu yàlla man maay maman Sadio man maay yaay Sadio Mané Aliou kooku sama càmmiñ la moo nekkoon sama joueur taw équipe nationale ma di ko supporté ba tey mu dem ba yore équipe nationale ma koy ñaanal yàlla yàlla dund di ko yor ba ay njabootam donn ko ci moom ci barkeenante bi allez les Lions Sénégal préparé ñëw Gaynde yi. yaay kontaan rek. di am kontaan bu baax a baax a baax si ah. lii nii nii nii. xam nga mais yéen tekki woon leen 2002 ah. mais ñu jël ko bu njëkk ndax yéen di kontaan rek di bëgg rek moo tax ñu joxoo suñu gaal ba lu ñu def lépp ñëw taxaw fii mais dem bu mu gën a yokku quoi tiitoon ngeen dem ba bañ demee tiro waaw joojoo la def naa ko bilaay mais après à la fin police numéro 2 sama gan sama copain la moom de jooy sax def naa ko mais après saa yu may daal maa ngay ñaanal yàlla quoi moom mu gën a jëm si kaw quoi jërëjëf ñu ñu wax keneen rek benn gaay tudd naka la Saliou la Saliou donc saa yéen aussi nooy dundee noonu moo ñu ko jaral quoi ñuy def lii quoi ñu ñaanal ay coupe bëri topp ci ci barke Seydina Mouhamed. te tamit mais est ce que non loolu lu ma gëm la lu ma gëm la parce que wane na ko quoi football na lu raw loolu noonu football na sax lu mën a jël mondial bi. Ah. incha allah ak Sadio Mané rek léppay baax. bu soobee fii ba ginnaaw suba sax dañuy taxaw feet feet feet lii dafa rëy quoi feet la bu mag boo xamante ne moom foo ñu feete ko quoi. voilà donc jërëjëf yéen ñi nga xamante ne ñu seetaan gis ngeen li nga xamante ne sénégalais wax nañ ko gis ngeen engouement bi depuis euh, na mais ils sont motivés ne moom mooy euh, xaar li nga xamante ne mooy gaynde yi gaynde yi wàcc nañ fi nga xamante ni moom mooy aéroport ñu ne xaar nañu génn gum aéroport bi xaar moom mooy route euh, ko waxee bu fekkee dañuy dem ci région aussi noonu lañ koy jëmalee ak topp leen fu ñu mën dem ci Sénégal pour wane coupe bi j'espère que di ngeen ko mën a seetaan fi nga xamante ni mooy seen chaîne bi leen wax rek wooyu leen def seen ay abonnement ngir mën di euh, suivre vidéo yi nga xamante ne leen koy jox ngeen jëf ngeen topp ñu baax a baax am na ñu ne si biir oto yi euh, ñoom seen euh, a réew mi ndax ngeen di dundee li nga xamante mooy mooy bi ak coupe bi nga xamante jël nañ xanaa kontante rek doon ko ñaan yàlla dogal ne ren la ñëw xanaa am mbégte rek di ñaanal suñu joueurs yi yàlla may leen yàgg di ko jël mais boo gisee engouement bi nga xam ne ci nekkee boobu léegi euh, demuñu xàddiwuñu lépp di ah dañ ko yàgg xaar rek vingt ans après 2002 bu ñëwee reproduire wu tey rek daf ñuy neex dañ ko ñàgg ñaan dañ ko yàgg ñaan yàlla ñëw nag mottali ko ren. mais tudd ko 2002 est benn la. yëpp benn la yëpp benn la yëpp benn la yëpp benn la. kon ku bëre moom moo màgg. waaw waaw. <laughs> man Issa Faye laa tudd. Issa Faye fan nga jógee. maa ngi jógee ba Kër Massar. Kër Massar ñëw euh, donc gis ne euh, ba léegi nit ñi ñi ngi toog di xaar gaynde yi donte naaj bi tàng na. Mhm. mais teewul nit ñi ñi ngi ñi ngi continuer di di xaar. Mhm. donc yow euh, loolu la lay def coupe ñëw pour une première fois. waaw mais kontaan dañ cee àndal rek parce que am na loo xam ne dañ koo yàgg xaar ko waaw depuis mille 1986 la gars yi wax te boobu fekk na juddooguñu te 2002 ay xale lañ 2020 22 bi xam nga ñu fekkee ko gars yi jël coupe bi loo xam ne moom lañ doon xaar kon dañ ci ànd ak mbégte ak kontaan te. démb boobu ba Sadio Mané raté premier penalty bi man ba Sadio Mané raté penalty bi laa gën a am conf xam ni même bu ñu ko ko joxaatee sax da koy dugal te bu leen fàtte ni Sadio Mané moo tax ñu qualifié parce que premier match bi lañ am penalty xaw ma deuxième bi. moom moo ko dóor daal koy dugal kon démb mu raté ko dañ koy comprendre quoi xam ni xam nga football noonu la demee. des fois Sénégal da mooy fi mu mënee bi. Hmm. gañe ko fa bañ ne Sénégal tiro bi est-ce aw eh, ma benn njàkkare. parce que damaa xamal dama man dama xam li ma yor quoi muy xam nga joueur yi ma yor. waaw maire gardien xam nga ak te démb boo gisee tiro bii nu mu demee suñu défenseurs yi ñoo jël seen responsabilité dem njëkk a dóor nu mu tudd Koulibaly après Abdou Diallo sawaay rate Bouna Sarr après si la kii jug nu mu nu mu tudd waay ah, Dieng la jug xam nga daal di dóor dugal gan gi dem dóor rate Sadio jugaat ma gën a amaat koof ne leen gars yi mënu maa la da koy dugal wallaahi wallaahi mais kontaan rek lañ ci am quoi ba déggoo ma ba 5 heures du nañ instant nii parce que ñoo ñooñu fi indi quoi a yi mbëkk rek di wax gars xam nga nañ gën a jàpp parce que descente na boo xam ne dañ ko war a footballaat quoi muy élimination coupe du monde waa match barrage te Égypte la ñuy amaat te dañ koy dem fekk ko Caire door ko iri ko Sénégal daal koy dóoraat xam nga këlifeeg moom mais nag di ñaan suñu borom mu sutura ñu waat xam nga ñu jël coupe du monde bi quoi affaire yi a neex. donc voilà jël li nga am nañ joueurs yi am nañ potentiel yi euh, meilleur gardien ko ko ak yenn défenseurs yi nga ñoo fi nekk ci mel ni Koulibaly je pense que euh, pour nga jël euh, du la jafe donc xanaa rek dañuy dañuy wëy rek ba ci kanam rek ñuy gis venu li nga xamante ni moom mooy sénégalais yi mooy joueurs yi jógee fa nga xamante ni moom mooy Cameroun war a wàcc ci tarmac bi nga xamante ni mooy euh, Léopold Sédar Senghor euh, ànd ak président Macky Sall aussi ànd ak ñeneen parce que gis nañ ne même ñi nga xamante ñoo ne si opposants yi ñëw nañu ànd ak ñoom moom lépp ngir daal di euh, sargal ñi nga xamante ñoo gaynde yi def lu njëkk ci histoire bu Sénégal mooy andi coupe bi donc mu nekk première étoile bi nga xamante dina feeñ ci mayo bu Sénégal ngeen topp ñu rek wéy leen rek dañuy topp abonnement yi da ciy baax commentaire da ciy baax ak yeneen yeneen donc mi ngi noonu ñun ak yéen ba ci kanam ci fi nga xamante ne mooy arrivé wu yi jaa ngeen jëf noppi ba nga xamante ni euh, fi ñu war a jaar jaar nañ fa ba askan wi ñu war a xool xool nañ leen saavonte euh, li nga xamante ne moom mooy seen supporter sénégalais yi donc ñu nekk rek ci yoonu ñibbi bi nga gis ne askan wi ba léegi ñu ngi toog ci mbedd yi di dund li nga xamante ni moom mooy coupe bi euh, doon nañu ci bëri gisuñu gaynde parce que fi nga xamante ne moom mooy itinéraire dafa gudd trop mënuñoo laale fépp mais fépp foo gisi si mbedd yi ñoom ñi ngi dundu euh, li nga xamante ni moom mooy euh, euh, ambiance bi boo la gisee suñu kanam suñu ginnaaw lépp ay ñoo xamante ni ay ay ay kii lañu ay ay supporters ay jeunes yoo xamante ni génn nañ ñoom aussi pour dund li nga xamante ni moom mooy arrivé wu trophée bi sûrement dinañ continuer ci li nga xamante ni moom mooy def. le tout ba li nga moom mooy sénégalais yëpp mën a gis trophée bi am na koo xamante ne ko nee na buñ ko sañoon dañ koy def de toute façon euh, décentralisé maanaam ñuy jël par par localité di ko fa defee donc ñu leen di jaajëfal yéen ñi nga xamante ne ñoon suivre tey euh, journée bi yëpp gis ngeen li nga xamante ne moo fi am comme engouement donc di leen jaajëfal di leen wax ne daal euh, def leen li nga xamante mooy seen abonnement ngir saa yu amee lu xew ci réew mi ngeen mën di ko am euh, fii la euh, fi nga xamante ni euh, moom mooy télévision bi ngeen tàmm di ko seetaan ngeen abonné saa su nekk jërë ngeen jëf